waa département de Mbour. de Mbour justement ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi lay fay bu baax alors euh, dañ koy tàmbalee d' abord ak euh, actualité bi nga xamante ne tey suba la ñu xëy gis ni presse xëy nañ ci muy njabootu euh, DJ Badji. Mm-hmm. mi nga xamante ni ba tey ñu ngi xaar xam. Euh, situation ça fait pratiquement un an ñu xëy ñu wax ni njabootam sax dañu leen jafe na leen ngir ñu yeggale seenum njàng ndax ci privé bi lañ nekk dañu mujj dagg salaire suñu wajur bu góor boobu te ba tey enquête bi joxee joxeegul dara njaboot gaa ngi sëngéem loolu ngeen xaaroon ah kan mënu kan mënul wax ne moom lañ ñu xaaroon de wante mën nañ wax ne jaaxaluñu parce que euh, déjà am na juróom fukki nit yu fi faatu euh, ñu taxaw ne dañuy def commission d'enquête ba sànq mm. ba tey ah, gisuma dool en tout cas euh, dëgg-dëgg commission d'enquête wuy liggéey ci loolu Euh, defe naa tamit euh, euh, ñoo xam ne dañu bokk ci ci ci administration parce que defe naa gendarme la woon. waaye gendarme la woon agent de renseignement. lañu wax vraiment loolu defe naa ne Sénégal. defe bu fi mu see am tamit defe naa ne dañ koy wàññi. Hmm. nga jóge noonu ñu ne ci sa mbirum liggéey nga doon dem ndax sa waa kër du say mbokk du say xarit. du kenn koo jëflanteel boo xam ne moom ngi génn mm. da nga nekk ñu ne ci mbirum liggéey ah yow ñu ne yow dëkk bi ñun suñu téléphone yi suñu kii lépp lu fi xew xam nañ mm. ñu ngi topp nit yi yow ñi nga xam ne ñooy toppaate eh, bu ñu demee bay ñu naan eh, kenn gisatu leen kenn xamuñu kenn xamu leen ñii naan faatu ñi naan leneen ak yu gën a ñaaw mm. lu ci lu topp ci faatu état bi ne ci kenn waxul hmm. euh, moo lay won degré bi Sénégal yàqoo ci yenn côté yi hmm. yenn côté yi ni muy doxalee euh, ci ci ci ak ak askanu Sénégal euh, bu xeex politique taxe bu taxawee dañuy daal di teg lépp luy yoon lépp luy war a dox na mu war a doxee teg ko fële ànd ceeg nag vraiment sañ-sañ ak dëgër ak euh, wow bët daal hmm. doon ni sax rus doon ni sax nëbbatu ak wow bët maa ko def maa ngi xaar ku génn ma tal sa kaw ndax mën nañ koo laaleeg politique la lëkkaleeg politique parce que loolu yëpp man pour man li li tax Sénégal euh, en en particulier régime mu Macky Sall parce que damay def différence su état. Hmm. ak régime mu Macky Sall nu mu koy doxalee. parce que moom day dem bàyyi fi état. Ouais. Euh, loolu Euh, mën naa wax ne ci xeexu politique bi la lépp amee. ci xeexu hmm. politique bi ak Ousmane Sonko. ci la ñu gis ay institution euh, ñu yegg ci foo ñu leen di traité d'une façon boo xam ne euh, d'abord institution yu kenn mësu leen dégg kenn xamul leen woon kenn xamul sax ñen ñoo fa doon liggéey. te pourtant depuis 60 ans ñi ngi fi di liggéey ñu jékki-jékki rek. Euh, léegi daal star yi mooy magistrat yi mooy kii yi ñoom lañ gën xam. Hmm. voilà léegi ñoon xoolee ñu xoolee ñu jàng ay mathématiques pour pour pour pour ak ay ay décodeur ak ay ay codeur ak ay logicielle pour defar Sénégal suba. ay article de loi la ñuy jàng ak yu kenn xamul. Hmm. foofu lañ toll buñ ko paree lan lañ koy doyee ndax diw bokk na ndax diw niñ ko traité noonu la rabat d'arrêt xawma lan contumace. contumax hmm. ak xawma lan ak lan ak lan ak yu kenn xamul bon am na njëriñ. am na njëriñ mais wax dëgg yàlla population bi bu ci nekkee di ci wax euh, oui mais dañ ne nul n'est censé ignorer la loi mais mm. pourtant la loi est complexe les lois sont de incompréhensibles parce que tey jii bu nit taxawee ne loi joxe na lii keneen taxaw ne mille loi joxe na lee donc man mi nga xam ne jànguma droit les lois sont incompréhensibles pour les citoyens peut-être yaatu donc donc nañ ko bàyyi ñi nga xam ne mm. ñoom dëgg dëgg dëgg xam nañ ko mais mm. dañ ñu ko indil ak nomination yi ñu gis ak ñi ñu dindi ñu gis mm. ak euh, ak mbirum troisième mandat ak mbir mbirum xañ Ousmane Sonko mu bokk <laughs> moo indi jaxasoo bi lépp lépp lépp lépp nag lu jaxasoo suñu parce que dafa nekk machine mm. ñuy teg ay acte di teg ay acte ba ci élection yi ba supprimer ay liste euh, titulaire bàyyi fi liste suppléant ba dindi fi ay chef d'état-major ba dindi fi yoo xam ne kenn kenn kenn mosu ko dégg Sénégal lépp ci xeex politique moo tax ñu fàtte seen bopp hmm. moo tax ñu fàtte defar seen tooguwaay pour ñu mën a ñu mën leen naw moo tax tey jii ñu mer ah déet seen tooguwaay ku xëy ne am na lu ëppal 3 millions de euh, parrainage dañ ciy dugg sax ñooñu da nga jàpp ni seen tooguwaay jamono ji dafa gën a jege génn palais bi. xam nga c'est pas l'impression qu'ils ont donné en tout cas ci anam gi nga benn yàlla ko yàlla yërëm dafa ne dafa doon wax euh, suñu papa Ablaye Wade. Mm. naxaate na ba léegi moom rek a gëm nax yi. Sénégal yëpp a ngi toog di ubbi seen bët di xoole mais moom dafay wax comme si dafa gëm nax yi. Mm. mais kan la ñu mën a gëm loo ne ñoom am nañ 3 millions 700 mille parrainage. mënuñu ko am mënuñu ko am. gis nga ñi mën a million de parenage deux millions peut-être je sais pas euh, gis nañu ni nit ñi jugee ñu gis ay rang ñu gis ay taxaw ñu gis ay lépp wante yow bu fekkee ne yow da nga yore fichier ñi yo ñi nga xam ne dañu am bourse familiale hmm. nga ñëw indi kii yore fichier euh, ñi yore euh, CMU nga ñëw indi kii ne financement ñëw indi kii ne euh, ele bi may dem euh, élection wala bii lii et cetera yóbbu woon naa ay nit dugal leen ci ay njaganjaay ñu yegg si et cetera nga ñëw indi bu la neexee nga ne dix-huit millions lañ. ah oui sa yoon mais yow la. foofu la bàyyeekoo beneen beneen affaire am na. Hmm. mooy ñun euh, dañu lépp lu ñu gis loo xam ne am na si sax lu baax dañuy dem ba nga xam ne lu bon li mooy gën a fës. Hmm. xam nga parrainage. bu ñu dàqee niñ ko defaree hmm. mën nañ wax ne que am na fu mu amee njëriñ am na fu mu amee njëriñ wante defe naa ne li gënoon rafet mooy hmm. fexe ba nga xam ne euh, kuy dem élection euh, nga am toogin boo xam ne yow war xam nga war ndax war nga dem walla waroo dem moo gën nga ne ñëpp mën nañ dem hmm. après nga indi parrainage su ko defee nit ñi ne d'accord nañ parce que 240 bare nañ quand même wante booy seet ba seet d'abord c'est antidémocratique mm. parce que boo nee 240 mën nañ dem may rappeler ne trois 300 300 et quelques am na kon potentiellement mënoon nañ am 300 et quelques candidats hmm. kon buñ nee fichier bi on va boo ci dindee xale yi euh, je ne sais pas moi 11 euh, millions la kon léegi onze léegi tey ji fichier bi huit millions la à peu près. jege ko sax on est à sept. sept trois cent sept millions trois cent sept ko war a diviser par trois cent quarante nga ne ku ci nekk loolu la war a am ci parrainage loolu mooy démocratie. ak autant de candidats. Ah, non mais non non yow yaa permettre. yaa bind ci sa xaatim ci say ci say loi ne ne ku am parti. waxuma sax mouvement hmm. waxuma sax indépendant hmm. waxuma sax leneen mais ku am parti li koy tax parti di am mooy concourir mooy dem nekk élection kon kooku war na présenter candidat ci yoon ci logique ci logique hmm. kon li démocratie laaj mooy gannaaw man mën naa bàyyi cent quarante yu am parti récépissé nekk ministère de l'intérieur ma nangu ne dañuy bokk au lieu ma xool ndegam am nañu taxawaayu parti ma bàyyi ne ñépp parti lañ mais kon su may def parrainage hmm. lii yoon mooy ah kon de ci nekk da nga war a am parenage bu bu mët kon ma daal di jël fichier bi million millions 300 diviser ko par 300 ay quelques partis yi ñu am nekku ci nekk loolu lañ la laaj ci parrainage loolu mooy démocratie c'est-à-dire